asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu maa leen di nuyu seen tur ak seen sant di nuyu bépp sénégalais bu may seetaan man la Fabry saajo nag fas yéene wax ci futbal bi li ma gis daal mooy xéewal ak ndam te war nañ ma ko nag ciy gént gént keroog premier football bi rek def naa 7 kilo mburu ma def samay ñaan yor sama kurus di ñaan di ñaan yàlla rek coupe bi ñëw te incha allah day am te am na yeneen sarax yu ma gis incha day am. dama xam ne rek dama gis gisati dellu gis gisati te du ci football bi rek laay gis macha allah yàlla may na ma mais ci lépp laay gis nag mais dafa dama xam ne rek am na lu ma gis te dinaa wax comme sénégalais laa comme ñëpp. te ci Sénégal laa juddoo fi laa yaroo te bu ma gisee jàmm damay wax su ma gisee ay damay génn sarax yàlla fanq loolu la rek mais incha allah ndam bi moom gëm naa ne Sénégal coupe bi dina ñëw ci kaw nag ñu defi sarax ndax man am na lu ma gis ci kaw ñu defi sarax rek ndam bi dina ñëw incha allah sarax yooyu ci kaw rek am na tuuti lu ma ciy génne rek mën naa ko baaxee maanaam borom kër yëpp rek muy góor di jigéen nañ génne ndox mu sedd bu ñu demee ba ba football bi commencé nañ taal ay sondeel 22 sondeel nañ ko taal waaw man loolu laa gis. waaw pour match bii rek loolu laa gis suba incha allah waaw. no yooyu gisaguma ko yooyu buy jub si bu ma tëddee rek suñu borom dina ma woon. gañe laa ci gis ñaata la nar a en tout cas daal bu ñu defee sarax yi ma wax. dóor bi amul amul amul commencement amul app mën na nekk 2 0 mën na nekk 3 0 mën na nekk tamit 2 ba tey loolu laa gis waaw mais tamit du yomb match bi suba du yomb waaw mais ndox mi moom bu ñu ko génnee dina baax waaw boobu match bi commencé rek nañ ko taal waaw di ñaanal Sénégal gi yëpp di ñaanal gaynde yi am ndam ca kaw ca kanam incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko def yàlla na ko bi ñëw kenn ku ne nag soo mënee ñaan ñaanal man maa bëggut a feeñ rek mais ñu bëri dañuy wax naan ñëwoon dama yóbbu la fii non bëgguma feeñ parce que xale laa ndaw laa lépp rek ndànk-ndànk laa koy def di yow dangay gis ni chaque jour nit ñaa ngi dugg liy dugg rek doy na sëkk moo tax man yenn yi bëgguma feeñ daal damay def ndànk-ndànk mais yàlla baax na Yo cojo ahora Wow. rek waaw